salaamaaleykum wa mbokk yi. waaleykum salaam. ñoo ngi nuyu ku nekk sa tur sa sant. Mhm. daa am lu ñu war a révéler fii nii tey. dañoo sonn. loolu biram GN dafay war a yem. loolu bu mu ñu topp 2019. ah du ñëw. fëlaale sànneeku. du ñëw. rambaxle xurbaxle. du ñëw. ah du ñëw ay ñoom ay ñoom lan sax. Euh, ay ay ay ay sànneeku leen. waaw fël fëlaale leen. xanaa neex. bu mu ñu topp 2018. ak tamit photo yooyu ñi envoyé pour ñu def ko statut ngir yàlla génn tuuti statut wuñ na fi yam léegi da ngay am sa numéro. nga am booy. waaw nga message ni ça va comment tu vas coucou envoyé ma tof uute abit kañ nga may seesi. <laughs> ay garaaw la de dafa yomb ba ah. pare yenn jigéen ñi tamit ñun bu ñu jëlee seen numéro da ngeen ñoo war a comprendre xam luñ bëgg. ah mais bu ñu jëlee seen numéro message da ngeen naa ñu see kii dañ see sonn na fi yam see kii souvent ou bien tu me connais. tu me connais on Nan njezak li ze le prek mwen yam fi? Bo njezak li se lo gwen dam, mwen mwen gwen tou do de. Nan njezak li se le? Nan njezak li se le gwen sou arlou fw amon. Mwen dara, nywe aya nan kon mwen akon si kezize. Yo yon da mwen yon tou, fw la lek. Yon a re teren nye ak. Sanye kwen mwen yon tou pou 2018. Te kep kwa kwa mwen tan lo di kon se yon 2018. Nywe mwen mwen yon 2019. Yal mwen li se le. Kondal, mwen kwen gaten le, yo yon chet yon bon, yo yon yon. Nan kon? waaw bis yooyu noonu ñu mun tudd booy fekkee receveur receveur bu boo jën tëgge bu dee receveur xam nga góor receveur lañuy wax waaw dég bu jigéen recevrice recevrice recevrice lañuy wax bu jigéen ndax dégg naa benn gaan wax recevrice la waaw bégaay xam nga bégaay bégaay bégaay kunul moo ma ko waxoon mu ne ma recevrice moo ma doon jàngal waaw moom la moo ma doon jàngal moo ma jàngal moo ma jàngal premier deuxième troisième quatrième cinquième sixième septième huitième neuvième ba dixième après ma baax mais xam gaan bu dafa garaw trop la def gis nga gis nga télé kii boobu boobu avancement lay am du bàyyi dara mas waaw mas waaw mas sa waaj mu mas waaw mas mu dem day dem waaw esat esat lamb waaw bëre bëre waaw pëjëm pëjëm mitin mitin bàyyiwul dara lépp lu ëmb yóbbu Sénégal rek si mbootaay sax bu ñuy tuur day dem waaw yow sabar nag. lépp du boobu daru lépp. kon daal dama ne géejewaay Evo sa. sa sa kanam sa kanam. bonne année. et heureuse. bonne heureuse. am na lu stop sax. on dit bonne et heureuse année 2019. mille dix neuf. que la paix règne dans notre Sénégal. dans notre Sénégal quoi toute la population est satisfaite de vous. waaw géejewaay Evo bye bye. bye bye. happy birthday. happy birthday.